yi

yéen a ngi en direct yéen a seen site bi di Dakar instant gis ngeen yéen a ngi en direct yéen a di Dakar instant ak Bour News ñoom ñaar lañu àndal tey jii ni nag. ñu ngi gis nga ki nga xam ne moom mooy chef protocole bi nga xamante ne moom moo di euh, chef protocole bu Ousmane euh, Sonko ngi lay jaar yaa ngi en direct jamono ji. soo sëñ bi bàyyi noonu rek fi mu ne moom. mu faal sama lépp la woon quoi. dëgg la ban yëg-yëg nga am tey lu métti nga xamante ne dal na Sénégal rawatina passé. bàyyi noonu rek parce que koo xam ni samay loxo la gaañoo moom man fi nekk di wax ko mu nekk mu nekk mu nekk benn témoignage bi nga xamante ni euh, chargé protocole bu Ousmane Sonko gis ngeen moo yëkkati euh, kaddu euh, di wax ne xol moo tooy ba tax na moom jamono ji sax pour mu wax ni ne mel lu métti lay doon si moom parce que si loxoom la génne àdduna kon mbokk yi ñu dëgte leen li nga xamante ni rek moom mooy direct bi jamono ji nag may wax Euh, euh, njiitu Pastef euh, président Ousmane Sonko moom moo ñëw fi nga xamante ni moom moo di si si si kër ki nga ni moom moo génn àdduna di faal loolu nag mu nekk lu métti métti am tey jii nag nga xamante ni ginnaaw bañ toppee itinéraire bi topp li nga xamante ni moom di levée du corps gunge ko aussi si këram gu mujj si àdduna ñu ñëwaat tey fii si kër gi Ousmane Sonko ñëw ngir jaale ko Ousmane Sonko ñëw pour wane li nga xamante ni moom moo di mbokk ñëw pour wane li nga xamante ni moom moo di aussi responsabilité bi nga xamante ni ginnaaw ba mu jiitee Pastef te ñu àndoon ak ñoom si moo di meeting bi nga xamante ni ak moom si cas Ziguinchor euh, samedi bi weesu euh, démb nag accident bi am tey du def lu dul ñëw masaw du def lu dul ñëw bokk ko ak naqar bi ak sénégalais du bokk du def lu dul ñëw dund ko ak métit bi loola waral sax tey tànkam bu ñëw fii nga xamante ni euh, gis ngeen ñu bàyyi leen tuuti ngeen xool image yi nga xamante ni njiitu Pastef mu ngi nii di agsi gis ngeen euh, oto Ousmane Sonko euh, jamono ji nag moom moo moom moo taxaw euh, jamono ji nag oto Ousmane Sonko moom moo taxaw fi nga xamante ni gis ngeen gis ngeen mu ngi noonu li nga xamante ni moom moo di li nga xamante ni moom moo di Sonko moom mooy wàcc nii nii nga xamante ni jamono ji nag mu ngi si oto bi may wax ak yéen yéen a ngi seen site Dakar instant ñu xaar nga xamante ni moom moo di euh, njiitu Pastef wàcc si oto bi euh, euh, ñëw jaarale si ki nga xamante ni a ngi ànd rek en même temps Dakar instant en ñu ànd ak caméraman bi nga xamante ni tey ñëw na ngir moom it mën a fekkee yëf yi fekkee ñi nga xamante ni moom moo di gis ngeen naa garde garde garde Ousmane Sonko bi moo nekk noonu ñu xaar Ousmane Sonko président wàcc mu ànd ak chargé de protocole am bi sànq gis ngeen bi ma ko bi ma koy jéem a laaj ban yëg-yëg nga am mu ne ma instant bi ma ñëw benn affaire xaaral wàcceel ma tudd xaaral yow jegeel rek ah, mu ngi noonu ba tey ah, Ousmane Sonko moo nekk si oto oto bi oto bi taxaw ni Ousmane Sonko moo nekk noonu si ah, ginnaaw di waaj a wàcc yéen a ngi ànd rek jamono ji jamono ji nag yéen a ngi en direct euh, si Dakar Instant ak Bour News gis ngeen euh, itinéraire bi nga xamante ne ànd nañu moom depuis tey euh, si levée du corps bi Ousmane Sonko wàcc na si otom bi daal di sol li nga xamante ni moom moo di bubu bu verte boobu ngeen di gis noonu ñu ànd ak yéen ñu ànd ak en direct Bour News ak Dakar Instant voilà mbokk yi mbokk yi président Ousmane Sonko moo nekk noonu ngeen di seen daal di sol nga xamante ni moom moo di yére bu verte bi Ousmane Sonko mu ngi nii ñëw jaale ki nga xamante ni moom moo di Ibrahima faal di a si ki nga xamante ni moom moo di ab ndawam di jaal si nga xamante ab rakkam ab jege ñaalem euh, ginnaw accident bi mu euh, ne àdduna euh, njiitu Ousmane Sonko njiitu Pastef Ousmane Sonko accident fii nga xamante ne moom moo di si kër kër ki nga xamante ne moom moo di Ibrahima Fall fii si waagu ñaay fii nga xamante ne moom moo si ñaari tali moom njiitu Pastef sax wane na li nga xamante ni moom moo di ab pas-pasam ak waaye responsabilité am bi nga xamante ni bi nga xamante ni depuis boobu ba léegi door ak si fii nga xamante ni moom moo di si kër gi ñu xool euh, image yi rek parce que instant bii nii c'est un peu un peu difficile par rapport ak euh, ak ak xibaar ñi nga xamante ni ñoo fi ñëw mu nekk mbooloo bu takko takku. mbokk yi gis ngeen euh, Ousmane Sonko dugg na ci bâche bi Ousmane Sonko actuellement dugg na ci bâche bi mu ngi noonu. Ousmane Sonko moo nekk noonu du ñu pandémie bi danaa la embrasser bu baax a baax pour t'exprimer toute notre affection ñu partager métti bu baax a baax maa ngi jégalu démb booru deux heures du matin laay doon gis appel dëgg la jërëjëf boobu ñu ngi woon blessé yaa ngi doon doon egsi waaw masala masala yàlla li gën rek lay def jërëjëf ah Adja Yacine noo def gis ngeen euh, mbokk yi Ousmane Sonko moo nekk noonu doon nuyoo ak ki nga xamante ni moom Mamadou Makhtar Gueye bu Jamra doon yónnee ay yéen a ngi en euh, seen seen site bi di Dakar instant ma bàyyi leen rek ngeen daal di suivre li nga xamante li ñu fi dajale tey nag bu doon jullit la buy ñaan rek duñu ñaan yàlla mu dajale ñu fi tey duñ ko ñaan yàlla mukk abadan ndax kii fi jóge tey te waral toogaayu Ousmane Sonko bi ak njabootam ñu koy wax Ibrahima Fall mu bokk ci njaboot gi ngeen yar ko def ko ni nga xam ne noonu la askan bëggee ay doomam mel moom day mataloon na ko lool am na ku may waxal tey suba ma ne ko Ibrahima Fall dafa dajal moo tax mu dem Ibrahima yaru na Ibrahima tey na Ibrahima du jëw Ibrahima mokkal na liggéeyam léppam set na man bindal naa ko tey suba ne ko Ibrahima yow sa mbalaan set na ndax sa jikko ndax ni sa jikko sete woon bu ragal dara Ibrahima moo yor appareil ñu koy wax objectif mu taxaw ca ginnaaw objectif ba lépp lu ñu war a tey ci kaw miir di ko tey ci xel ci xool ak ci xef Ibrahima matal na ko ci liggéey bu set Pastef rafet na Ousmane Sonko rafet na ay kilifaam rafet nañ ndax liggéey bu set ci Ibrahima matale na lépp buy seet si kii di waxtaan ak moom Ousmane Sonko mii yenn saa yi mu yëkkati ay baat tubaab ba kii ba Ousmane naan ko yow yow xanaa français nga yow xanaa xanaa lan nga ndax teeyam teeyam teeyam teeyam nee naa ko nag Ibrahima yow day yaa daan dàkk di diir di tiire ci kaw nit ñi ay image mu jekk lool te rafet tey nag yow yàlla ki muy yónni muy mawt dàkk na la diir na la te ni nga daan ni nga daan ñàkk a moye say tiire yow moom du moy du jaas dàkk na la wallaahi jàpp na la dal na ci sa kaw waaye tamit lu ci mënti am dañuy wax inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ndax nag ñun ñoo wuyoo baat boobu ñun ñoo wuyoo diina jooju saa su yàlla dogalee ñun dañuy nangu saa su yàlla dogalee dañuy nangu dama ni bis bii day ku toogoon fii di ñaan doo ñaan bis bu mel nii dañuy dajale fii ci Ibrahima ñu wutal la soxna matul fukki fan nga dëddu yàlla rek moo ko mën du tàggu kenn lu ñuy def daal mooy nangu te ñaanal ko moo tax ma waxaat ko ne ko Ibrahima moom malaakal mawt dàkk na la dal ci sa kaw du lajj waaye ñun nit dinañ la diir dinañ la dàkk dinañ la dóor ay ñaan dinañ la ko dóor ba mu dal lool ba nga yëg ko dinañ ko ñaanal ñaan yu amul àpp yu dul jeex ñaan yuy daw ba abadan dinañ ko ko ñaanal ndax kilifa la woon ci ñun ku ñu fonkoon la ci ñun gàtt na tuuti na ay atam bariwul lool waaye ku dijj woon ku mat la woon ku mag la woon ci suñu biir moom mi mënut a ay kàddu man da jafe na ma trop sax tey jii ndax nee naa ko ñun de du ñu jooy tey du ñu jooy tey ndax yow yaa wax ni. combattant yi fa ñuy daanu kenn du leen tiim dafa jooy dañ leen di sargal di leen màggal dinañ ko sargal màggal ko moo tax ñi ngi jaale njabootam yëpp ñi ngi jaale soxnaam di jaale waajur yi Ousmane ñu ngi la koy jaale ndax ku ñàkkit yow ñàkk nga Abdoulaye ñu ngi la koy jaale ku ñàkk ñàkk nga Pastef jaale ku ñàkk yéen ñàkk ngeen ñu ngi koy ñaanal ñun de am nañ njort yàlla na yàlla dëggal suñu njort ne Ibrahima de buy xippi aljana aljana ci wetu sunu sang bi sallallahu alayhi fala sallam yeewoo lii moo nekkoon kàddu yi ñu bëggoon yëkkati muy kàddu yu diis te jafe ñi ngi sant yàlla ba ñu mayee ñu mën koo yëkkati ci teey ak làmmiñ bu ñu yà bu ñu jàpp ni war naa mën a set ngeen baal ñu wax salaamaaleykum wa rahmatullah jëlee suñuy bàjjen ñaar yëpp ñoo dem suñuy doomu bàjjen dafa fàtte di rek ñoom moom mooy suñu moom moo formé moom moo formé booy balaa nekk fu nekk di àll ci dëkk yi mbokk internet Dakar instant ba léegi yéen a ngi direct fii nga xamante ni moom mooy kañam Ibrahima Fall nekk ndaw bi nga xamante ni dafa daal di ñàkk bakkanam ci accident bi Ousmane Sonko nag moom moo fi nekk di yëkkati ay kàddu booba léegi yéen a ngi ànd ak ñun en direct ma bàyyi leen nag kàddu Ousmane Sonko ngeen déglu voilà mbokk yi gis ngeen euh, Ousmane Sonko kàddu yi nga xamante ni yëkkati na ko jëmale ko si ndaw bi di Ibrahima Fall euh, ginnaaw ñàkk gi mu ñàkk bakkanam si accident bi nga xamante ni ndiki démb la woon mu ngi noonu moom sax mu ngi daal di euh, jublu si oto bi ngir mën a ñibbi yéen nee naa la yéen a ngi en direct seen site bi di Dakar instant mbokk yi si ngeen ma déggee di ngeen xam ne voilà mu ngi noonu Ousmane Sonko mu ngi noonu di waaj dem mi ngi noonu waxtaan ba pare gis nga mu ngi noonu di saafonte ak kilifa yi Malick wan ñu image yi Sonko mu ngi noonu euh, di saafonte ak kilifa nga xamante ni ñoom dëkk fii nii di ay kilifa euh, Ibrahima Fall mu ngi noonu di daal mbokk yi ma daal di leen dégg kàddu yi nga xamante ni Ousmane Sonko jamono ji mu ngi saafonte ak kilifa leen nekkal ci ñun waaw kon am na am na loo xam ne yéen a ko def ci ñoom yéen a ko mottali daal bi waaye mun naa ja mun naa dama ko doon xoolee sax bu sa kër ñaari fu ma mus a nekk doo mos a dégg Sonko bi si jafe-jafe te gisoo Ibrahima donc de mars bi may jàpp fii maa ngi ko. waaw loolu yëpp dañu koy bàyyi loolu yëpp dañu ko doon bàyyi kooku moom mun naa ne xam ñemewu ma wax ni lim li ma ñàkk moo ëpp waaye nag ñàkk ngeen daal di soxla xam nañ ko xam nañ ko bu baax a baax baax a baax a baax a baax a baax oto bi ànd ak yow ñu def statut waaw Casamance ci kaw oto bi waaw dafa ne saa Dakar bu maa ngi si waaw dootu leen gis maa ngi si. ndeysaan loolu mooy ci suuf nag bu ngeen ma gisatu. maa maa ngi si waaw waaw gis nga. man ko lisaanu àll la doon waxee yàlla mottali yàlla daal na fan yii nañ fi ñëw. ñu gën a toog waa kër gi ñu waxtaan. gën ci yokk itam man sama appartement ñoo bokk. fu mu dëkk waaw pour di leen gërëm gis mois de juin am na reportage boo xam ni ñoom ñëw nañ fa boobu coalition bi ngeen def nii amagul de ma génn fekk rek ñu toog ma ne leen li may ñaan yàlla muy pur muy Khalifa sal muy sonk ñii nañu ànd boobu li amagul sama kër foofu waaw man ko man ko man ko ñun pire lañ bokk na waaw waaw waaw ñun ko pire lañ bokk waaw ñu ñaan yàlla ñoom ñëpp ñëw kon nag yàlla yàlla jàppale jërëjëf yàlla jëfal ci qui a formé Ibrahima non non non grâce à lui c'est grâce à lui quoi vraiment on travaille ensemble vous voyez ça nous ça nous a beaucoup touché voilà mbokk yi gis ngeen mu ngi noonu euh, Ousmane Sonko euh, gis nga kàddu yi mbaayante euh, kilifa yi mu ngi noonu daal di génn ngir mën mu mën oto mu mën a ñibbi. gis ngeen mbokk yi ñu ngi ànd ak ki nga xamante ni moom moo di Ousmane Sonko ginnaaw bi mu ñëwee fi nga xamante ni moom moo di kër Ibrahima Fall fas yéene daal di indi ab njaalam waxtaan ak kilifay yi saafonte ak kilifa wane na xaram waaye tamit bokk ak ñëpp gis ngeen ko mu ngi noonu sol xabtaan verte bi nekk ana Sonko mi ngi nii non Sonko mi ngi nii. kii mooy Sonko. ana Sonko koo ci xàmme. kon yow du ma sa président yow du ma sa président. yaa ngi jàng ban classe ban classe CM2 ah yow mën ngaa def CM2. waaw dama seetlu gis ngeen mu ngi noonu Sonko mu ngi noonu di euh, di génn Sonko mu ngi noonu di génn mu ngi di génn si bâche bi ngir mën a rejoindre otom ndaxam xam naa ne il est temps mu ñibbi ginnaaw nag bi mu dem jaalee fële nga xamante ne moom moo di euh, yeneen ñaari garde yi nga xamante ñoom si tëngeet euh, lañ leen daal di denc tey mu ñëw fi nga xamante ne. dara bul ragal dara bul découragé mbokk yi yéen a ngi gis euh, mbooloo bu bëri bëri euh, daal di koy topp daal di ñaanante ñaanante ak moom di rafetlu aussi geste bi nga xamante ni moom euh, président Ousmane Sonko def na ko ñëw sees ki nga xamante ni moom moo Ibrahima Fall ginnaaw ba mu demee woon fële nga xamante ni moom mooy si yeneen ñaari garde yi nga xamante ni ñoom it ñàkkoon nañ seen bakkan si accident bi nga xamante ni amoon na ndiki démb fële si Tëngéej ba mu fa jugee directement la ñëw fi nga xamante ni moom moo di fii nga xamante ni moom moo di si kër Ibrahima Fall ngir mun a jaale si ko ak mbokkam ngir mun a saafonte ak mbokkam ku ko waddal ah. jërëjëf merci. gis ngeen. gis ngeen ba léegi Ousmane Sonko mu ngi noonu di daal di génn ngir mën a ñibbi waaye euh, ba tey euh, dëkkandoo yi nga xamante ni ñoom ñoo dëkkandoo Ibrahima Fall ñu ngi saafonte ak moom Ousmane Sonko mu ngi nduyoo ak askan wi ngir euh, mën a jaale bu baax a baax ki nga xamante ni moom moo di Ibrahima Fall mu nekk ab geste bi nga xamante ni dañ koy daal di rafetlu bu baax a baax mu ngi noonu daanaka tijjil nañ ko otom ngir mu mën a ngir mën a dugg fi nga xamante ni moom moo di si otom ngir mën a ñibbi yow jàmm rek am yàlla say noon di torox barke Seydina Muhammad foo toll deel wax amin noonu mu nekk ay kàddu yoo xamante ni ah, ñenn ñi si askan wi ñoom ñoo ko yëkkati fii ngir mën a mën a saafonte ak ah, président Ousmane Sonko ah, ima Malick mu ngi leen di wan image yi nga xamante ni Ousmane Sonko jamono ji ginnaaw bi fi ñëwee ngir mën a jaare ki nga xamante ni moom waaye duggaat na si otom ngir mën a dellu nga xamante ni fa mu jugee woon mu ngi noonu mbokk yi lii la ñu leen indiloon tey gis ngeen tayoo euh, tey Dakar instant mu ngi leen doon tegtal nga xamante ni euh, kër ki nga xamante moom moo di Ibrahima ak yeneen ñaari garde yi nga xamante ni leen denc fee nga xamante si moo di Rufisque xare leen àjjana yi si gën a kawe te jégal leen yërëm leen Ousmane Sonko mu ngi mu ngi génn fi nga xamante ni euh, moom mooy euh, fi nga xamante ni moom moo di euh, zone waa. waagu ñaay fii si ñaari tali fii nga xamante ni Ibrahima Fall fii la daal di tëkk ginnaaw nag ab accident bu metti métti bi nga xamante ni génn na si àdduna Ousmane Sonko mu ngi noonu di dem hmm, jiitu fa seef ginnaaw ba mu ba mu jaal see woon ba mu seet si woon ki nga xamante ni moo di Ibrahima Fall bokkoon si cortège am bi accidenté woon ba génnoon àdduna mbokk yi mu ngi noonu ñu ngi leen di jox dig daje di leen jëf